بعد أحييكم بتحية الإسلام بتحية المريدية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نير وخلب أرشدا يهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة سافية بركة مام شيخ إبراهيم فلام باب المريدين باب الله باب الجنة mbokki jëlee ci mbokki taalibe yi soxna jaara Bichri moo leen nuyu di leen ziyaara waaye maa ngi leen di nuyoo fii ci télévision Touba TV ci seen émission bi nga xamante ni mooy jotaayu soxna yi aju ci fas yéene waxtaane jigéen dayoom na ko lislaam fàttaliko woon ak noonee téere yu mag yi daal di koy fàttaliku ak gëdd bi mu am ak daraje bi mu am ngeen koy am ak fii sa jour ci émission bi nga xamante ni ah, mi ngi daw à partir vingt heures et demi nga xam ni soxna jaara Bichri moo koy taxawee tey nag ñu yeggale xasida gi nga xamante ni cheikhul xaddiim xaadalaahu lahul maxtaara lahoo borom tuba aji màgg ji borom tubaa moo ko bind daal di koy jagleel jigéen ñi muy ndénkaane ñu tuddee ko jawaabu soxna Penda Diop daal cay jëloon ay bayit faram woon naa la yooyu la bayit yu ko jiitu xamal la ni la xasida gi sëñ tuba da koo bind jagleel ko jigéen ñi jigéen ju bëgg lu baax jigéen ju bëgg a teg tànkam fu baax mën na déglu yooyu la bayit xasida gi nag di wax ci li nga xamante ni moom la jigéen war a mel am na ay dénkaane ci biir xaside gi waaye am na tamit ay tere ci biir xaside gi muy xaside goo xamante ni siiw da bokk na ci almashhur nit ñi di ko jàngale waaye nag ñi di ko jëfe moo gën a wóor rawatina ñun soxna yi nee naa la góor yàlla yi sax war nañ koo mën di teewlu ñu tuddee ko jawaabu soxna Penda Diop ñi naan ko wasiyatu soxna Penda Diop li waraloon woowu tur nag mooy soxna Penda Diop moom ko digle moom ko doon digal soxna si bàyyi taxam la woon borom këram muy sëñ Ibrahima Mbacke bokk ak bàyyi borom Touba muy Maam Mor Anta Sali benn baay moom mais moo doon dem kër di soxna Penda Diop ca la ko sëriñ ba dénkee yi le kàddu xamaloon ko daan ko aleyki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri fi sirri wal jëhri fa yaxfiru lakki duumi ala tawbati bil ittihaad wala tamili li siwaari shaat duumi ala xumuli wa tasaturi wal tax fi di sawtaka dëhran taskuru mu ni ko woon soxna Penda maa ngi lay dénk di dénk bépp soxna boo xamante ni rek bëgg na lu baax bépp soxna boo xamante ni rek soxna su jullit la bépp soxna la boo xamante ni rek bëgg naa am ngërëm kër borom këram mbaa mu jur fa doom yi barkeel ñu ngi lay dénk bi wasiya mooy nga doon koo xamante ni ku mën a muñ ngay doon doon ku ragal yàlla sa borom ci lu nëbb ak lu feeñ boo ko defee des na la jéggal mu ne ko nag na nga sax ci tuub te góor góorlu ci te bul jéng lépp loo xamante ni kenn jubu jubalu la ko mu ni ko nag maa ngi lay dénk nga doon ko giim maanaam doon ku dal te am sutura te wàcc sa kàddu soo ko defee des na la sant laa tan zuri ma dumti xayyata ilaa xayri lazi taxtalihi hadin jala mu daal ni ko nag bul di xool ci sa bët bi yaa ngi dund loo xamante ni sa diine daganalul ko mu ni ko noonu na nga may tëndiku li nga xamante ni mooy jëw ak rëy yooyu nag foofu la tere yi tàmbale ci biir xasida gi sëriñ bi moom xam naa daa xam soxna yi tubaarkàlla te yii yëpp melokaanu jigéen la te jigéen ñi ñoo koy ñoo koy defante seen biir moo tax sëñ Tuubaa daal ñu koy tere daal ni wajtani bil xiiba wa takabbura na nga maytandiku li nga xamante ni mooy jëw wa takabbura ak rëy nee naa la jigéen du rëy jigéen dafa war a oyof waa asbiti ta nga saxal as sukuuta mooy noppi mu ni nag wajtani bil kaziba na nga maytandiku li nga xamante ni mooy kàcc waxoon naa la ni la donte dañ lay rey sax waxal dëgg lu metti metti waxal dëgg boo cay am ndam waxal dëgg boo ci amul ndam waxal dëgg ndax dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj mu ni nag war a yaa a nga maytandiku li nga xamante ne mooy ngistal jëfi ngistal bala noo mën a séddale rek mbaa nu baatere na mbooloo mi teew bala ñoo mën a terle rek faaw àdduna bi yëpp dëpp ñu caméra yi mbaa nit ñi daal di teew mu tere woon ñu wala xoj ba ak naw jëf wa suma ak jéggital wala buxda ak mbañeel lii yëpp xeeti jumtuwaay la yoo xam ne ah, ñun soxna yi dañ koy defante suñu biir mu doon loo xamante ni luñ war a bàyyi xel la mu daan ni daal ca teg nag wa asbiti siddiqa maa al ixlaasi wa nusqa tasfiri bil ixtisaas mu daan ni nag na nga doon koo xamante ni kuy saxal ak dëgg la jigéen dafa war a dëggu dañoo yaakaar ni rek góor rek moo war a dëggu waaye jigéen tamit dafa war a doon koo xamante ni saadixatun la dégg nga mu ne nag maa al ixlaas ànd ngay sellal say jëf wa nusqa nag del laabirante del del conseiller waaw del joxe say nasiha di di di di di digle lu baax waaw di digle lu baax di tere lu bon jigéen noonu la taxawaay boobu la war a am tasfiri bil ixtisaas boo ko defee rek da am ak tuuf maanaam da nga am ak jagleel am neexal ñu ñëw nag ci beneen partie bi nga xam ni sëriñ bi fii ba tey tamit mi ngi lay digal fii nag ci borom kër lay wax ki nga xamante ni mi ngi ci xaala bi nga xamante ni moo borom këram moo tax wasiya bi nee naa la mën ngaa doon euh, jànk maanaam amagoo borom kër nga di ko déglu ndax dina la jariñ waaye nag nga nekk ci buumu sëy di sëy bëgg teg sa tànk fu baax bëgg teg sa tànk ngir am tu tànk yu baax nga daal di may jox nopp man soxna jaara Bichri ma yeggaleel la njàngum borom borom mii nga xam ne bind na ko jagleel ko soxna yi mu ni nag wala tarumi taatallaahi bila taata zawjiki attaqiisil ula muy wax joo xamante ne wax ju xóot la waaye wax ju nit ñi bara bàyyi xel la mu ni nag wala tarumi taatallaahi bila bala ngaa sakkoo topp yàlla na nga topp sa borom kër ba noppi Sëñ Tuubaa nee na bala ngaa topp yàlla na nga topp sa borom kër ba noppi waaye ki ngay topp kan la kañuy topp laata ngay topp yàlla kan la nee na nag zawji ki taqiy mooy rajulun taqiyun góor goo xamante ni góor gu ragal yàlla la góor goo xamante ni dina la mën a jubal ci siraatal mustaqim góor goo xamante ni dina la teg ci diine waaye dina la teg ci sunna si yonent bi salaat salaatu salaam dana la teg ci faraait yi dina la teg ci mustahabaat yi dina la ci teg ci lépp loo xamante ni moom la la diina digal nee naa la loolu nag li tax sëriñ bi wax ko bala ngaa sàkko topp yàlla na nga sàpp sàkku sa borom kër bu ragal yàlla bi ba noppi waxul góor gi nga xamante ni daf lay digal loo xamante ni diina diglewu ko boo koy topp da nga koy topp ci li nga xamante ni moom la yàlla moom la yàlla digle mu ni nag wal taala mii na nga xam anna jihaada niswa maanaam jihaatub jigéen wal taalami da nga xam anna jihaada niswa xam nga jihaat dafa bokk ci diine ji jihaat mooy loo xamante ni ni góor ñi bu xare amoon tey jii ñu ni dañuy dem jihaat góor ñi dañuy gàddu jaasi yor seeni yor seeni yor seeni dem jihaatali diine daal di dem jihaatali diine maanaam xeexali diine ba diine am ndam comme li amoon bu njëkk ñi daan jihaad ñi ni képp ku jihaad fi sabilillah yow sab àjjana taxaw na jihaatub jigéen nag ci diina ji ñun sunub jihaad ñun soxna yi lan la nag wal taalami anna jihaada niswa fii taatil azwaaji duuna miriya ñun nag suñu jihaad ci diine ji mooy ñu topp suñu ndigalu borom kër fii taatil azwaaji duuna miriya waaye nag borom kër bi ñu topp rek day day dem ci zawji taqiya ki nga xam ne dafa ragal yàlla teg la ci yoonu yàlla wax la li yàlla digle wax la li yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle koo xamante ni dalay xamal sag diine ndax boroom kër warteef la ci mu xamal soxnaam ndax dañuy wax jigéen matul doon donte jàng nag ñëpp la war waxoon naa la ko ni la nag jàng moom war na góor war na jigéen ndax mën ngaa am boroom kër bu jàngut yow nga jàngal ko xamal ko ba nga xam ni yow jigéen ñi yow jigéen ki yaa koy teg ci yoonu siraatal mustaqim waaye nag liñ baaxoo xam mooy góor moo war a dimbali jigéen ci xam-xam donte ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp la war moo tax sëriñ bi daal di wax ni nag na nga xam ne jihaatub jigéen nag ci diine ji ni góor di gàddoo jaasi gàddoo matériel dem xare jigéen ab jixaatam ci diina ji lan la fii taatil azwaaji duuna miria mu daal di doon koo xamante ni kuy topp ndigalu borom këram la daal di topp gi muy topp borom këram nag da koy topp ci lu neex yàlla sëñ bi du ñëw rek wax ay bëgg-bëggam yo xamni deppow la ak li yalla bëgg rek nga daali def daan ni nag sëñ bi moko bëgg nako def dedet boko ca defé daan ya sa ak sa borom la bokoy top dang da nga koy ci li nga xamni mom la yalla digle bu lay téré tamit na la téré li nga xamanteni mom la yalla digle mune nak ñu ñëw ci ngeerëm ngeerëm li nga xamanteni mom la borom kërëm wara soxnaam soxna yi nañu xam bu baax wa xaysuma zawju raddi an zawjatihi nañ xam ni day saabu borom kër bi gërëmee li nga xamante ne mooy soxnaam raddiya anha rabb rabbaha bi nicmatihi nañ xam ne yàlla suñ borom kat dana ko gërëm moom may borom xéewal ya kon yàlla balaa gërëm faaw sa borom kër bi gërëm la la nga war a jëfal sa borom kër ba mu gërëm na nag bokk na ci mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem di def lam la sante nga yam ci mom liñ nane tambalé ci dam yam ci dam waye tambalé ci sa borom kër yam ci sa borom kër bokku na ci li nga xamanteni sa boko defé man nga laq ngeureumam bokku na ci li nga xamanteni jigen borom kër mën nako mën nako mën nako koo muy nangu muy nangu jigen bu nangoo rek man na am lu ne ci borom kërëm man nako gërëm mën na koo tagg ñaanal te yoy xéti bal la bal yo xamanteni saa bu ko borom kër gi jëkkatee ci xolam daal di koy wax jabaram soxnaam afwan bal la boo xam day dal ñaan ga ñaan ga day dal ndax borom kër sang la daraja jooju yàlla moo leen ko may arijaalu xawaamuuna ala nisaa'i bima fadala allahu baadum ala baadi la alquran wax lu métti métti rek yéenay suñu sang yéen yéenay suñuy sëriñ yéenay suñuy kilifa yéenay suñu yéenay suñuy lépp yéen ndax yéen la yàlla jiital ñu topp ci te donte alquran am na atta yoo xamante ni jaamu yàlla góor ak jigéen ñoo ci yem hakaza yeneen ak yeneen waaye teewul kaddu kër gi yéenay boroom mu ni nag waxay suma zawju raddi an zawjatihi na nga xam ni daal saabu boroom kër bi gërëmee rek yàlla dina gërëm la ngay jëfal sa boroom kër nag ba mu gërëm la bokk na ci nga di ko toppatoo sa borom kër na nga ko war a toppatoo bi ci taam ci saraab ci malbas ci xeet yépp nga toppatoo ci sa borom kër ba am ci ngërëmam jigéen booy sàkku ngërëm la ngay jiital mooy as sabru mooy nga muñ muñ faw nga jiital ko suñ tuwaa moom la jiite woon ci wasiye bi ci ndénkaane bi alayki bi sabri fas biru bari na alquran lu muy indi dalaa il yoo xamante ne day tegtali muñ inna allaha maa sabirin bari na yoo xamante ne mi ngi ciy wax yàlla di ci wax li nga xamante mooy muñ te muñ lu am solo la rawatina fi nga xamante ni la jamono toll ku muñul da ngay perte ndax mënoo matale lépp te it mënoo am lépp te bëgg-bëgg yi bari na te jamono metti na àdduna xat kon nak li lay dimbali ba nga jariñu ba làq sa ngërëmal borom kër bokk na ci nga jiital ci nga doon koo xamante ni ku mën a muñ nga ginnaaw bi nga xamante ni muñal sa borom kër ba na nga doon koo xamante nak nag ku la góor dafa bëgg ku koy déggal maanaam bala dem nga man de sangi bi dama bëgg dem bërëb sangam mo cey xol la ka neex mu ni la demal bu la ne demal khairun bu la ne togal togal nga boole li la neex ak li la nakari goor dina natt jigen ci nga bëgg dara ba ñepp xam da nga bëgg dara tak ngay say bagage ba wara dem señ bi jox la ndigal ni la kat ordre bi ma la jox moy yebbi watal bagage yi nga tok man na la ci nat man na la ci nat bu la ne togal nga daldi di loole mën na la caa gërëm gërëm loo xamante ni mën nga caa fawxa mën nga caa am lu fawxa sa njortu mu ni nag wal temps la mii mu ni amma isa lam yarda anha abada fa laysa yardallaahu anha sarmada na nga xam ni nag bu fekkee ni nag yàlla bu fekkee ni nag sa borom kër bi gërëmu la na xam ni yàlla du la gërëm ba faw amma isa lam yarda anha abada fa laysa yardallaahu an laahu anha sarmada bu fekke ni nak sa borom kër bi gërëmu la na la leer ni yàlla suñ borom du la gërëm kon nak yoy la beuyit muy beuyit yo xamanteni ni sëriñ bi moko bind wa ta'lami bi anna kullu ma sadara li khayri wajhi zil jalali fa hadar na nga xamni nak lépp lo gis fi ni ci ak gongiku lépp lu ci làmboot ak diine rek na nga xamni li lolé ak neen la muy ndigle yo xamanteni ni cheikhul khadim khadimul khadim cheikhul khadim borom jumaaji moko digalewon soxna yi soxna yëpp ñu war ci bàyyi xel muy wasiyatu soxna Penda Diop muy wasiya boo xamante ni nee naa leen dénkaane la boo xam ne soxna yépp dañ ko war a jël taf ko seeni seeni bunti néeg saa boo xëyee rek nga daal di koy liir bàyyi ko xel ndax yi la dénkaane boo ko toppee ah, mën nga cee am li nga xamante ni ah, mooy doom yi barkeel mën nga cee am ngërëmal sa borom kër mën nga cee am ngërëmal goro sax xattaa ba njëkke kon nag loolu lañ leen indi loolu woon ci suñu troisième numéro eh, daal di jeexal xasida gi fas yéene dikkaat yeneen ci yeneen i wasiya ak yeneen i ndénkaane ak yeneen i aaya alquran fii ci jotaay soxna yi ci Touba TV ngeen ko àndoon ak seen mbokkum soxna eh, soxna jaara bisri ñu ngi leen di jaa jëfal eh, ba beneen yoon incha allahu taala ci beneen numéro